gin war a waxtaane sëriñ baa ngi ko bind ginnaaw géej gi muy xasida goo xam ni sëriñ bi da koo tënk aayatul quraan boo xam ni aay bi rek mënees na cee taxaw jàngat na ndekete yàlla gàncaxam ci suuf su nangu foofu la koy ji sëriñ bi jël aaya bi génn ci ndono yonent bi maam yi mu jaare suñu borom bu la waree wàcce dana la wutal silsila boo xam ne boo ci wàccee kenn du la xarab mm-hmm. loolu tax sëñ Fallu woy ko neex wàllu ndeyam di wàllu ñaari maamam ndeyam di baayam baayam ay nijaayam xalifa ndey ja ba bawoo mbusoo mi ngir ay shérif lañ fa wax nañ doroome mm-hmm. ndekete deret ci yëf yi la bokk mm-hmm. waaye boo jàngee xasida gi technique bi sëriñ bi di ñaanee technique bi muy ñaanee ci daraja yonent bi di ko tuddal maam yoo xam ni soo xamuloo yonent bi ci dënd bi sax di nga ko bëgg ngir maamam yi nga ne ay jàmbaar lañ خسيدة جموي والبلد الطيب خسيدة جي فانويري بيدلا 30 أبيات سوما جملة لما جت قصتي أك أسنيو غنار لكو تالفة نستري مدارن ويا لبيا أنفيرون ما في منكة دانا كويا بوخلي مخدمات أبيات دي نير جمون نير دعنا خمين دونا ويا لأنفيرون ما دابا بني ديج عرب لنا كلام moo tax mu jaaxal leen mhm. kachafta du jaaxal bi wa kulli xamaytuhu bi hafzi lati mahmastaka mustakin aska maanaam muxaddimaat ni mu ko taalifeeg wakaana maanaam munoo ko munoo cee munoo cee maanaam boo ko dégloo te xamu firi mi sax mhm. da lay neex ndax daana woyaale environnement mhm. xasida gi sëñ Ablaay am ay mbóot nag yu ci ne ndax li may wax rek sëriñ bi xasida gu ne ak mbóot maam ci denc waaye dama lay bàyyil nga ubbil ñu ko balaa sëriñ Maalik ga ñëw ci abyaat yi ñu dugg ci xas ndax damay bëgg saa saa ñu ma taxaw loola. waaw waaw nga leeralal jaam yi waaw ndax fi ngay taxaw des fois di leeral. ba balaa boobu am na bayit bu ma ñëw nii. Mm-hmm. boo xam ne bëgg naa nga wax ma ci lan moo ko différencier. Mm-hmm. karamani. Mm-hmm. karamani. fii mawdiyan yi. mu karrimun bil am ni. safa xaladi. wallaay ndeysaan. xasida bayit woo laa bëgg. waaw maanaam fii mawdiyan yi. fii mawdiyan yi maanaam ca palaasam ba. manam bërëb ba mu moomale boppam teral wa baladi wa baladi teral matam ci sama dekk di sama rew mu bil amni. ni mu karrimun aji teral ma bil amni kikul ci kóolute nga xamni dara mootumaa yakal wa safa mu selal xala bi sama sax ku fi sax nak da ngay dem étern à l'éternité mu ne sama sax gi ma fi saxit da ko selalale nga xamni tay seigne touba buñ ko gisit mbiram day sax di sel rek ba àddunay tukki ki ma teral dama wóolu dafa am kóoluteef ci teral gi ma teral waaw pare daal koy daal may sellalal nag sama sax léegi nag safaa di waaw safaa xaladi mooy sellalal na sama béy sama sax éternellement éternellement nga xam boo fi doon sax fii ak mille ans tamit sama lépp day seel dara su yàqu ndax li tax mu wax ko nitu yàlla léeg-léeg mu am départ bu baax mën nga ci indi exemple Balaam ibnu Bawor mën nga ci indi exemple cat li mooy mujjantal ba waaw waaw mujjantal ba waaw sunu borom ba koog sa iblis ma yàqal ko mhm. am ci ño xamni ni lañuy am mhm. dem ba japp ni ag nañu fekk njaayal dug seen bir yàqu man nak selal gi ma selal ba ma gane aduna ba ngeen may noppi gis ba ci sama ginnaw mhm. daa iman lay doon sama sel dutul lañ waaw lolou lolou da ko yaro xam ta beuy ma laaj lako waaw daf ma traverser sax mais dama bëgg nga leeralal ko nit ñi ndax waaw teraangay sëñ Tuubaa ki ko jox da ko wolu jor ko ko jox waaw te teraanga ji dafa sax xam nga kudul yalla bu la teralé bu la joxé teranga léeg-léeg man na mer nangu ko waaw Hmm? waaw ku dut yàlla bu la joxee teraanga waaw man naa am lu mu bëgg nga defal ko ko defoo ko mu génn ca waaw waaw ah, waaye nag yàlla moom dalay may sàmmal la ko def ko ngir sax manquement moom ak matam mu jox la ko daay man dootu ko dindi waaw boo ko liggéey ba mu fay la dootu ko dindi yaa ko moom waaw moo tax nag mu ne nag yàlla euh, teraanga gi ma teral mhm. daa àndaleeg wóoralal ma ko nga xam da ko wóoral ba nga xam ni mhm. dootul denc sama loxo teraanga jooju faw la moo tax ka taxaw fee nangam lii day day dakk léeg nga dégg su naan ah toog muy dox dafay jeex da nga dégg ay waxi dox yooyu dégg nga nit ci fekk loolu duutu fi deñ képp ku nekk ci sëñ Tuubaa ba mbirum tàbbi si ci yow teraanga ci ngay deewee kenn mënatu ko dindi yaa wax dëgg loolu la demee teraanga dootul deñ ci yow dootul deñ ci sa njaboot ni ko mën a xamee sëñ Tuubaa 27 la dem waaw te tey jii sëtam yaa ngi nii li ñuy def kenn mënu ko def projet bu ñu dugal ba ñëpp yéemu ñu teg beneen waaw te la jëm kenn du ko dindi loolu ndax lolu jam mayu ko ko yalla mi sak jam ñee ko jox neena ba pare wóoralal ko ko ba mu wóor sellalal ko ko ken mënu ci yaq dara ken mënu ko tilimal tam da fa lay do non ngay déggee wax ja hmm. yalla dama teral ca palaasam ba teral ma ci sama rew tay jii moy senegal ku fi dugg rek mbirum seigne touba ñor la parce que rew mi po ko xam teral ma ci sama bir balat sama bir réew mm-hmm. ba pare sécuriser mako waaw sécuriser mm-hmm. xam nga léeg-léeg nit nga jox ko dara sax man na mom nit yàqal ko wala mënu koo saytu waaye yàlla da koo jox pare daal ko koy sécuriser ni ko sa yoon bu mu ci nekk maa ko sécuriser man yàlla maa ko ku mënta yàq sama dara du yàq sa dara noonu la ko def ku mënul yàq mbirum yàlla mënoo yàq dara ci sëñ waa da koo sécuriser ba pare tam kenn mënu koo tilimal wala nga ciy dugal lu lu dul noonu parce que maa ko sellal set na wicc waaw sax gi ma fii sax yëpp sella lay doon dëgg la sama teraanga tam nekk gi fi nekk yëpp day ànd ak sécurité kenn mënu koo yàq wala nga woon koo xam tey États-Unis ju jéem koo yàq moom du ci man dara États-Unis mi gën a am puissance yi àdduna mënu ci dara. moo tax mu am accès fépp waxuma laa kenn. maa la ko dañ koo sécuriser li ko yàlla jox. ndeysaan. Eh, wal baladu tayyibu. waaw xasida gu doy keemaan la. gu doy gu doy ndax sunu boroom dafa fonk loolu suufam si. waaw tàllal ko. Mhm. boo seetee ci suutu naba yi. Mhm. dane ama yatasaaluun ani naba il azim ولدهم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وراه الجبال أوتادا كون سوف يالا ميكو في تك داكو فونك لول نيار دي ناي وات نيار دي ناي جوخ اي افيرتيسمان دي واني نيمو ساكي سوف اك ليمتي ديف واو دينج تي يينن بور بايكات يي واخني تام ما يور تاوي دي نيورال ديمال تي سوتو لقمان واو ان الله عنده علم الساعه وينزل الخيسه مغو waaw kon mooy wàcce taw yi war koo indi ci suuf si ba tey naba ji ma jóge soriwul ba mu waxee wa banayna fawqakum sab'an siraadan wa ja'alna fiha siraajan wahaajan wa anzalna moo al mu'siraati maa'an sajaajan hmm. waaye li nuxriju bi habban wa nabaatan kon dañuy génneel lu ñuy dunde di génneel suñuy jur lu ñuy dunde hmm. fële mu ni hmm. afaraytum maa taxrusuun antum tazraunahu am nahnu zaariuun law nasaaw jaalnaa huttaaman bu ko neexoon moom yàlla lépp mel ni ah mboob dara du baax waaye neen ndax gisu leen li ngeen di bay man yàlla maay maay jël mbay moom deen ci génneel li bëgg xanaa gisuleen leen li ngeen di bay kéemaan bi ma ci def léegi nag lu ñu mën a mën a bay soo demee tey ji fekk benn kekk boo xam ni kenn mësu cee bay gent bu mel nii nga bay ci doo am dara bi ñu mënee bay day fekk ñu fekk suuf su nooy suñu yàlla tàggatal mm-hmm. ñu def ci suñu jiw di xaar dara génn ci loolu ñu misaal ko ci kon mm-hmm. boo demoon jëli ji jigéen ji gën a yéesu ci àdduna bi tamit mm-hmm. ah ni dama ciy am wàllu bi raw ci àdduna tamit du mën a sotti kon booy ji da ngay wuti fu baax inna sababnal maa sabban sabban mu ngoog wa saqaqnal arda saqan sëriñ euh, Tuubaa bi nga ñëwee ba muy taxawal njabootam kone gis na ci dafa dem ci dëkk yi nga xam ne tey ña ko dëkkee woon alxuraan képp la dunde ak mbaax waaw mu ngi ci indi exemple soxna Mariama Jaxate mhm. exemple soxna Faat Jaxate mhm. kon boo xoolee ñi kër sëñ Tuubaa ñëpp mhm. sëñ bi daa dem ci fu ñu yaakaar fu dunde seen ñaq fu maandu fu dëddu àdduna fu bëgg alxuraan foo fee wut ak njaboot bu ko wéttali ba tey ñu jur ci ay boroomi jamono mooy kon kuy wuti da ngay dem fu baax fu ñu yaakaare wut fa loo xam boo ko fa jiwee mu baax nag di fàttali loolu ci alquran ci suratul araaf su ma juumul waaw mu ni wal baladu tayib mu ni suuf soo xam ne dafa teey te nooy wal baladu tayib yaxruju nabaatuhu maanaam gàncaxam nga cay génne dana ca génne bi izni rabbi ci ndigalu borom suuf si tegee ci yoon rek boo ci jiwee bu tawee rek yàlla jox ko ndigal mu mën laa génne li nga bëgg motax bo xolé qasida gi lo rek la seigne touba ndeuk a woy fa woy wal balad tayyib yahruju nabatuhu wala way do door nak bi izni rabbihi ci la woyee sabay yi waaw waaw maanaam ni mu gi ni ko structuré dafa commencer wal balad tayyib yahruju nabatuhu bi izni izni rabbihi ci nak la teje pour way sabay saaba yi toppoon ali sallallahu alayhi wasallam sen melo ya dal len di ràngale ci ay beuy kon da ko structuré waaw nga wax léegi lu am solo sëriñ bi ni mu dégge làmmeñu yaaram ak ni mu ko ni mu ko moomee waaw ak li mu fi daan def te kenn mënu ko dafa am kenn ku ne ko ci woykatu gànnaar yi dañu sëriñ Tuubaa al lugatu an naxwu wal lugatu ilmul arabi waaw an naxwu wal lugatu ilmul arabi wal joodu wa saqaa inda al kurabi siimatuhum fa jaahum zu rutabi ahmadu bamba man ala bi rutabi نجل حبيب الله ذو تأدب فصلب الجميع أي صلبي منهم فصاروا معه كالقصب إلا عسيرة النبي الأنجب لأن أحمد بامبا يا أخا تقربي أفيحل لك ظلم العربي بأخذ النحو وأخذ الأدب وأخذ جودهم بغير ودب أنا وقتو غانار داني تا بونكال لكو مانا واي من يو سيرن بي دا فا ملني grammaire bi ñu moomoon parce que grammaire loo ko mën a mën da nga fiy bàyyi arab yi waaw dañ daan wax loo mën a mën grammaire nag ki ko nàmp da gën a dégg grammaire mhm. mu ni kon ñun arab yi suñu apanage suñu moomeel la woon mhm. grammaire arab mhm. mu ni luxatam mooy baat bu ne nga xam cosaanam lu muy firi waaw loolu tam suñu moomeel la woon mu ni tabe tam mën a defar nit nga ñëw ñu dal may la ba nga ak mën a bokk mën a séddoo mu loolu tam suñu moomeel la woon ñun arab waaye yàlla miy def lu ko soob moo xëy tànn ku tudd Ahmadou Bamba. waaw wàcce ko ci sunu biir mu ñëw gànnaar fii fekk sa fi. waaw bi mu ñëwee fekkoon na ci sunu grammaire ñu moom ko ak sunu vocabulaire ak sunu lépp. ak sunu tab. mu nangu ko ci ñun ak dooleem. ñaar bi nee na sëñ Tuubaa nangu ko ak dooleem. nangu grammaire bi nangu vocabulaire bi. nangu générosité bi ñu amoon ñun ñun naar yi. ñee ñun ñëpp ñu mujj topp ci ginnaawam nag. di ko gunge. ni mboolu dugub ni ko. gàncax gi di toppe noonu lañ toppe ci ginnaaw sëñ Tuubaa nangu ko léegi xam ni nangu na lépp moo ko ma mu ni nag kon dama koy wax moom sëñ Tuubaa ni kon yow Ahmadou Bamba ndax dafa yell ci yow di tooñ ndax dafa yell ci yow di tooñ waaw